ñoo ngi leen di dalal bu baax a baax a baax xëy na lañuy tudd dalal dafa mënut a ñàkk waaye fii seen kër ngeen ñëw amut kenn koo xam ne ab jaambur nga ci kër gii mboolem ñu fi nekk ñépp kenn ku ci nekk këram la ñëw dañ naan dalal rek waaye yéen yéenay dalale kon mbokk ñu ngi sant seen teewaay ndax doomu aadama waxtoom lum la ca jox lum nirulu tuuti tuuti rek mëtt a xeeb lu mat a sant yàlla kon nañ xam ne mboolem ku fi teew ku sore ku jege ak ku mën di doon yàlla gis na ñëpp ñi ngi dalal ñëpp jàmm deen xamal ne daal fii ngeen ñëw bërëb bi ñëw bërëb bi sëriñ Tuubaa la foofu waay yem rek yaa fi yemal sa bopp foofu waay yam yaa fi yemal sa bopp seen kër ngeen ñëw seen ñooñ ngeen ñëw seeni bokk ngeen ñëw seen bokki taalibe yi ngeen fekk si fii kër la ci kër seexul xadim yi kon fu waaye jógee ci kër Serigne Touba rek boo ñëwee yaa ngi ci biir kër Serigne Touba fa nga bàyyi moo fi nga ñëw ñoo yem rawata nag lii nga xam ne tey nekk mooy dundal ak bokk te muy lu am solo loo xam ne suñ boroom da ko santaane Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feddi la ko Seex Muhammad Bamba dund ko santaane ko ñu nekk ci ngeen nekk kon yàlla nañ yàlla defal jotaay bi tawféex jotaay bi xéewal ñu am ci lu kawee njort te sax daanaka am na ba noppi ndax xalkalam yu leer yii fuñ teeg fu ne fuñ teew fu ne rek xéewal nga fa yàlla nañ yàlla wisaare xéewal gi yàlla na yàlla defal jàmm defal ñu xéewal mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bu ñu sante yàlla sun borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ngi am mbégte ngir fas yéene ànd ak yéen jotaay bi di sant bu baax di gërëm mbooleem ñi teewe jotaay bi yépp di ay waajur di ay mbokk di ay xarit di leen di sant bu baax di leen gërëm di leen tatagal di leen yaatal ci seen barab ni ko suñu waajur yi waxee léegi ngir njëkkanteeg waxtu wi jotaay bi li ko wundu mooy ay bokk yu daje ngir dundalaat seenu mbokk ngir rafetal seenu ànd looloo tax bu ñu dajee ci turu ay bokk yu daje laaj na ñu woo benn boroom xam-xam mu waxtaanal ñu ci luy dëgëral ak bokk ak lu rafetal ab ànd di ko niitoo nag ci njàngalem sëriñ Tuuba radiyallahu anhu xel yépp nag dajoon suñu mbokk di suñu xarit ñu bokk waar wi di ci liggéey di sëriñ Mbàkke Abdourahman xafisahullahu waraa ñu fas yéene koo jox kàddu gi mu waxtaanal ñu ci eh, jëmmi ak mbokk niñ ko war dundale niñ ko war a doxale rawatina ci kepparuk Seexul Xadiim nga xam ne ku dib taalibe loola sa wareef la duñ ci guddal dañ koy jox kàddu gi xanaa rek di sàkku rek ci mbokk yi ndax waxtaan dañu koy diglu suñu sañoon dañu bàyyi lépp diglu waxtaan wi ba mu jeex bu ko defee incha allah leneen lu ñuy jàll ñu jàll ca kon maa ngi koy ñaan te di ko saraxu ci mboolem mbokk yépp ñu bay ñu bàyyi xel waxtaan wi kon sëriñ bi ñu ngi lay tatagal di la yaatal. maa ngi leen nuyu di leen ziar yéen mbokk yi fi teew yépp ak képp kuy dégg sama kàddu di ziare bu baax sunu kilifa gu tedd gi kilifa bërëb bi di alxaaji Mahmoud Mahmoud Niang ñaanu sunu borom sàmm ko te dëgëral ko di nuyu mbokk yi ak wóllëri ya xarit yi am mbégte ci teew ci. jataayu mbokkoo bii nga xam ne euh, lii alxaaji Fallou Niang wax léegi moo ci ne ay mbokk yoo xam ne ku fi ñëw ku ne fi nga bokk kon bu ñu santee ñu waxtaan ci fàttalante ci mbokk gi ak nuñ mën a fexe ba sukkandiku ci liggéeyal sëriñ bi loolu ci barab bii moom dana yomb ndax foofu xool rek mën nga fay joxe misaal ñu ngi mbokk yi fi teew yépp bari fi lool ay xarit ay wëllëre yu yàgg di leen ziare bu baax a baax eh, ak mbokk nag xam naa ñi daje fii moom dee su leen jàngal lan moo di mbokk waaye nag ginnaaw suñu borom moo santaane fàttali nañ jàpp ne li ñuy wax ci buntu fàttali lay doon ay julli suñu dajee fàttalante seeni warteef seen njariñ la ku xamoon gën caa xamee ku fëttoon fàttaliku xëy na ci bunt boobu la ñuy yëkkatee suñu kàddu di wax ne ak mbokk alal yàlla noonu la ko mag wala fi di waxee dëgg la alal yàlla ndax yàlla ko sàkk ci coobareem yomb na yàlla lool nit ñi am te mbokk du am ndax am na yeneen i bindeef yu bari lool te am te mbokk amuñu mbokk kenn ku ne ci ñoom bokkoo kenn dara loolu yomb na yàlla waaye li ko soob lim lim lim namm mooy doomu aadama moom mu def leen ñu nekk ay bokk yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk xëy na gën a jege ak gën a jaxasoo moo am waaye nit ku ne nit ku ne mbokk ma ndax cosaanul nit kenn la muy maam aadama alayhi salaam xalaxakum min nafsin waxida min nafsin waxida kon cosaanul nit kenn nit la ci kenn bakkan boobu ci lañ génne seen soxna sant leen ñu ànd nit ñëpp soxi ko ci nga xam ne tey góor goo doon lim ay maamam te te taxawoo da nga ci adam bàyyi diw bàyyi diw bàyyi diw boo taxawut ci aadama ngay teeri yaayu yoon topp yi diw diwa yaayam diwa yaayam boo téerul ci xawa ngay teel ci ñëpp nag ci làkk yeeg waaso yeeg xeet yëpp kon sori ak jege moo am waaye nit ñi ay bokk lañ bokk yooyu nag lu ñu war a dundal ndax yàllaa ko santaane bëgg ñu dundal ko rawatina nag loolu mooy mbokku nite mbokku nite nag léeg-léeg yeneen i bokk yeneen i mbokkoo da cay bokk mooy bokk pas-pas bokk jëmuwaay bokk fu leen yàlla féete la ngeen di fa dund dend loolu lépp ay yu ci dolli ko la waaye cosaanu nit mooy nit ñëpp ay bokk lañ waaye nag al aw awla kon ki gën a jege day gën a yay gën a jaadu waaye ñun ñëpp ay bokk lañ bari na am itteel na lool ndax loolu ñuy wax ne yàllaa ko dogal amul kenn ci noonu koo xam ne mooy tànn fi muy bokk ci jege googu kenn kon yàlla la sob mu boole la ngay bokk kon alal yàlla waaye jëfama joo xam ne daa bëgg jaam ñi fonk ko dund ko moo tax kenn ku ne fi mu bokk war koo ñor war koo jox yitte ndax jëfi yàlla te jëfi yàlla ab jaam da ko war a gërëb ab jaam da ko war a gërëb bi ci des it bokk moom du génn ñett xeeti bokk bokk yoo xam ne yaa leen tane mbaa ñu tànnale mbaa nga yem ak ñoom lu ci nekk xéwal la saa bu amee bokk tane leen santal yàlla te jaamu ci ñoom yàlla buñ la tanee santal yàlla bi nga amee ay mbokk yoo xam ne boo jaaxlee mën a dem ci moom boo yamee ñoom àndal ak ñoom lu xew ngeen ànd bokk dund mu woyof ndax aw tiis lu mu rëy rëy wax soxla bu ko ay bokk bokkee mu woyof loolu bokk na ci li nga xam ne war nañ koo jàng ci mbokk mu am nag ay àq yu bari ci aju yoo xam ne war nañ ko fàttali xëy na jataay bi du may lim yëpp waaye fàttali ci yenn bokk na ci ak mbokk dañ koy xam ndax ndigalu yàlla te nit lu mu xamut mënu ko jox ak xam ba nit ba dañuy wax man jahila shay'an aadahu nit lu mu réere bañ ko bari na ñoo xam ne seen politique lu bu bëggee nga bañ dara dañuy fexe ba nga umpule ko loo xamul rek mën nga ko bañ al insaan aduwun li ma jahil kon bokk na ci li war nit ci bokkam mu xam leen ndax xadis bi wax ne taallamu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxamakum rawatina bu fekkee ay àq yoo xam ne dañ la koy topp ëllëg nga mën ci am tuyaaba ju bari boo ko sàmmee te rafetal ko waaye mën ci am bàkkaar ci boo boo ko rafetalul àq yu bari ay àtte yu bari aju ci lislaam réyal ko lool ba tax muy tere muy tere nit di bokk fu mu bokkul di bokk bokk fu mu bokkul moo tax dañuy dafa dafa dafa tiis lool ci lislaam génne nit yu askan wala tàbbal nit yu askanu bokkul ci ci bàkkaar yi mag a mag yi la bokk mata moytu gis ngeen bi ñëwee fekk aada yi taban ñuy adopté ay doom jël nit yéegal ko ci saw askan boole ko sa njaboot su mbam daa ñëw tere ko ne uduuhum li abaihim wa aqsatu indallah fa in lam taalamu abaahum fa ixwaanukum fi diini wa mawalikum bu fi kenn jëlati nit daf ko doomam yéegal ko ci askanam bu dee taxawu ko nag ak fonk ko ni ñuy fonkee njaboot nag lu lislaam santaane la waaye yéegal ko ci saw askan boole ko ci saw askan mu war laa doon wala nga mën koo doon mën laa doon loolu moom lislaam da ko tere te fekkoon na mu nekk aada yonent alayhi salaam fa mu nekkoon daan na ko def Zayd ibnu Xaarisa dooma woon nag waaye bi lislaam wàccee ci la ko dindi ñu delloo ko ci bàyyam di ko wax Zayd ibnu Xaarisa ak mbokk yi di lu am solo loo xam ne bokk na ci ay soloom doole la doole la ku ànd ak i bokkam am kàttan waaye ku tàggoo ki bokkam néew doole gis ngeen yontu yàlla Shuaybu alayhi salaam bi ko noonu fexeel bokk na ci lañ ko waxoon walaw laa rahtuka la rajamnaaka wa maa anta alaynaa bi aziiz lan rek moo jaaxal sa mbokk yi kon nit bu ànd ak i bokkam daal di am doole moo tax xakim ba waxoon ne axaaka axaaka inna man la axaa lahu ka saain ilal bi xayri silaahi wala bi xayri xusaami ku amul mbokk bu xare ji mook soldaar bu dem ci toolu xare te ku amul mbokk mook soldaar bu dem ci toolu xare te yorut nga naay ñooyam loolu bokk na ci li nga xam ne war nañ koo fàttaliku xam ne kon lu ñu war a suuxat lu ñu war a dund te di ko dundal la te sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu daan ci jàngale njàngale mu am solo mu am njariñ bokk na ci lim daan wax ne nit mën naa ëpple ay bokkam waaye mënu leen ëpp doomu aadama mën na ëppale ay bokkam waaye mënu leen ëpp mënoo fexe fexe ba say bokk nga weesu leen nit mën naa gën ay bokkam waaye mënu leen a génn nit man naa gën ay bokkam waaye mënu leen a génn nit mën naa raw ay bokkam waaye bu àndut ñoom aw doxinam du rafet loolu ay bind yu war di fàttaliku ci jotaay yu mel nii la xam ne doomu aadama doomu aadama ni ko yàlla binde da ko binde muy nit ku yar a jaxasoo te jaxasoo nag jaxasoo say bokk gën jaxasoo ku dul say bokk ndax boo jaxasoo wut ñoom bu fekkee sëg nit bi ci yow danga wuti keneen moom ndax doomu aadama madani yun bi tabax yi ni ko borom xam-xam ba waxe woon mënta beru di dund te niteem ak niteem mat saa beru di dund rek xamal ne am na lu maa ngi ci moom kon jaxasoo mënti nag waaye li gën ci jaxasoo mooy jaxasoo ak say bokk jaxasoo ak say bokk mooy li ci gën rawatina nag sunu wasat bi nga xam ne yàlla dafa def tawféex bokk ci ñaanuk sëriñ bi gu nangu mën nañu wax ne ñi wuy si woote bi ñëpp ay bokk lañ ci deret yu jege néew na lool nga gis ci ñaar ñoo xam ne mënoo xam lañ bokk néew na lool sori ak jege lañuy wax gën a jege gën a sori waaye daanaka mën nañu wax ne ñëpp boo doxee tuuti gis jenn moom ju leen boole ñu baree bari ñu daje fii tey am na jenn moom joo mën a tudd rek ñoom ñëpp dañ cey dellu loolu ci taw tawféexi sëriñ bi ak ñaanam gu nangu ñi fi daje pas-pas boole leen waaye nag ak bokk boole leen kon kon ñu am warteefu dundal bokk gi waaye dundal pas-pas boobu leen boole léegi nag kon jariñoo bokk gi ngir dëgëral pas-pas bi warteef lay doon ak mbokk euh, li ci yàlla di def ñaare mooy li ëpp ci nit ñi bokk mbokk bu yaatoo rek lay tax ab société mën a dund yàlla dala ko def ci biir mbokk mooy ñetti xeeti catégorie nit ñi ku am ku xam ku man te ñett yooyu fu dajee lu sotti ñoo ko sottal saa bu mbooloo nekkee famille bu mag boo gis am na ci seen biir ay boroomi xam-xam yoo xam ne luñ soxla ci xam-xam mën nañ ko lijjanti am na ci seen biir ay boroomi alal yoo xam ne lu alal di def mën nañ ko def am na ci seen biir ay boroomi man-man yoo xam ne lu loxoo di def mën nañ ko def ñett ñooñu nag bu àndee jagal addu àdduna jag ndax lu ñu soxla mu faju euh, luñ bëgg lu leen songu te baaxut ñoom mën nañoo àndandoo fangu te kon saabu bu kenn ci ñooñu beroo nag ak dunum naqari ndax du mën a mel ni war a mel borom xam-xam lu xam-xam bari bari moom kese mënta dund ndax soxla na borom alal soxla na borom man-man te aajo nag li wolof di wax soxla du tuuti soxla lu mu nur nur lu tuuti bu fajiwul rek borom ami jafe-jafe te ñiy faji soxla nag ñu wuute lañ am na soxla yoo xam ne ñu ko mën a faj day mel na ci société bi ñàkk solo lañ waaye bis boo amee soxla sooso te gisoo leen bis boobu sa lenn du neexati loolu lu ñu xam la moo tax nit ñi. kenn du du xeeb kenn kenn du xebet kenn annaasu linnaasi min badwin wa xaadiratin baadun li baadin wa in lam yashuru xadamu waaw noonu la leen boole maanaam koo gis muy dox rek ñu ko faral di waxe surgëb moromoo nit dafa soxla nit wolof day wax nit nitay garabam di wax ne nit nitay garabam waaye nit moroomu nitam mooy garabam ndax moo koy faj lépp lu jàngarul ne ci moom ci nitam ci moroomu nitam lay solay fajoo ndax ci la ko yàlla di jaare loolu it bokk na ci li tax ay mbokk ñu war a dëgëral seen mbokk te dëgëral gi nag mu ngi tàmbalee ci jëm koo xam àq yi ci aju ñu jëm koy joxe muy sila silatu rahim àq la ju yàlla gàllu ci loosu nit ñi ku ko def te rafetal ko yàlla fay ko gërëm ko waaye ku ko sàggane it yàlla wan ko ginnaaw yàlla nu ci yàlla musal ku bëgg ñu yeexee aw fanam yaatal wërsëgam nay jokk mbokkam loolu yéen moo ko wax loolu it bokk na ci njariñ yi yi war a bàyyi xel bu ñu bëggee sunu mbokk ñu di ko jokk te benn xakim daa waxoon ne bu buñ doon tënk jokk mbokk mooy lan mooy lépp loo ko mën a defal ciw yiw nga defal ko ko loo ko mën a fanqal ci safaan nga fanqal ko ñaar yooyu mooy jokk mbokk kon saa yoo mënee dimbale sa mbokk ci genn wet te dimbale woo ko bu mbokk ko dogee yaa ko dagg saa yoo ko mënee fanqal ab safaan te fanqaloo ko seetaan ko ba mu dal ko mbaa mu gaañ ko yaa dog mbokk kon àggal àggale jox eggale ci moom lépp loo mën a eggale ci moom ci aw yiw waaye fanxal ko lépp loo ko mën a fanxal ci safar loolu nag ku ne mën na ko su ko defee la ci dolli ko nag yi koy yàq di ko gàllankoor ñi di ko moytu bokk na ca iñaan bokk na ca rëy ak yu demee noonu ñaaw yu suufe yooyu iñaan dana tax nit war ginnaaw mbokkam ndax lu mu am mbaalum xam mbaalum lu man teew mënoo ko sante ko yàlla ginaaw sa mbokk ko man boo amee aajo am nga mbokk moo xam ne boo ci demee aajo ji faju loolu nit ñi dañu waroon di sant yàlla ci am ay mbokk ñu tane la ci wet loolu lu ñu war a sant yàlla la ndax ndimbal la ndax sa mbokk defal la moo gën jàmbur dafal la ndax solo sa mbokk la lu baax la loo xam ne sarax la ba noppi nekk daf lu baax itu islaam noonu na asak sarax boo ko joxee sarax nga boo ko joxee miskin waaye boo saraxee sa mbokk am nga ñaari tuyaaba sadaqatun wa silatun saraxee nga jokk nga bokk kon lu baax lu waaye def def ko ci sa biir bokk moo gën def ko ci jàmbur loolu it mag ñi bokk na ci liñ doon jàngale di ci yare yooyu yëpp nag kon faaw ñu góorgóorlu ci xam mbokk gi ni ko mag ñi dafa woon yitte kenn ku ne ñu fexe ba nga xam li nga bokk sa mbokk ba boo ma mën ko jokk ndax umpule ko dafa am ay gàllankoor yu muy indi ak ay lor bokk na ci léegi dinaa ko faral di wax nit dana faatu fii ñu ne la xamuñ ko koy doon amuti mbokk nit ko amuti mbokk amul mbokk yi daanaka waaye ñàkk yitte woo mbokk dana tax nit faatu duñ xam ñi ko war a doon te ay nit a ngi mën ñu ko jege nit ñi moom bu ñu weesoo ndey ak baay rek jàpp nañu mbokk amatul ñu bàyyi xel ne ci wàllu géñoo meen mën naaw sole lool rawatina ci donn géñoo man nit mën naa sore lool ci kaw nga jàpp ni waru laa doon te waru doon waaye boo ko umpulee nag joxoo ko akam loolu day jur doo ko mën a xam te mag ñi kat loolu ñoroon na leen misaal ma ci joxe askan wii diggante Mbàkke Mbusoobe ak affaire yooyu mag ñi ku seqoon dara ump leen ci ña ca soq ko ca maam yi gën a sori mag ñi dañ koy bind di ko tasaare dégg nga maa ngi yër rek bu yàggoon mbindum alxaaji bu ma Maodo ñang muy wax ñang-ñang yi fa ñu jógee ca Mouhamadou Lamine ma jógee woon giri maxa yaakaar naa la ñëw jolof ba àgg ci yaat ma moo deeg mel meññi ñëpp boo demee ci Mbàkke fekk fa loolu boo demee ci mbuusu fekk fa loolu ñuy topp mbokk googu ba ku ca soqi ko ñu xam la loolu yitte la giñ war a suu suuxat ci ndaw ñi ñu di ko ñu di ko wéel ay léegi tey dafa mel ne nit ñi booy waxtaanee mbokk sax day jàpp ne ay léeba ki lupp la jot gi mayeetu ko te ci dund gi la bokk ci jaamu yàlla gi la bokk ndax borom bokk santaane ci it suñ ndono yu baax yi la bokk ndax suñu mag ñu baax ñu ridwanullahi alayhim ñoo ko fi bàyyi woon ay mag ngay gis ñu ci bind ndax atte yi ci aju ak nag ndigal yàlla yi ci yi ci la im lënka lool kon loolu jàpp naa ne lu ñu war a namputal ndaw ñi la fexe bañ xam ko bu ko defee nag mbir mi mooy liggéey liggéey bi xidma li woote sëriñ bi woote nit ñi dox jëm ci yàlla te doxe ci tànkub sharia ak xaqiqa loolu nag ay mbokk buñ àndee joxante loxo day tax liggéey ba gën a gaaw ci misaal waxtu wu ne kilifa yaa ngi woote ay liggéey ngir liggéeyal yàlla ba bokk na ci li taalibe yi war a sant yàlla seen borom waxtu wu ne ñu lay soññi ci jëf ju baax joo xam ne da ngay faatu lu yàgg jëf ja des fi tuyaaba ji dal fekk fa nga tëdd jumaa ju tëdd ji ba ko kilifa yi tàmbalee ba muy àgg mag ñu bari jaar nañ ñi yanu ay xeer indi ñi yanu ay toj ay xeer ñi sotti ndox lu ne ba jumaa ji taxaw ku ci mas a def dara ba fi mu ne nii lu baax lu fa am sawal wàll génn kon ku la fàggul loolu mënatoo ko fay te mag loolu mooy li sëriñ bi doon woote ci saa bu liggéey amee ñu sant ko ñëpp ngir bëgg ñëpp jariñu loolu nag bu ci ay mbokk déggoo àndandoo day tax seen bokk ci gën a yomb ba noppi ëpp njariñ loolu fi ni njaboot yi war nañu bàyyi xel loolu bu sëriñ bi santaane njaboot gi dajaloo àndandoo ku ne la nga am mbooloo mooy doole kenn ku ne mën naa dem joxe dana baax waaye bu ñàkkee mbooloo joxe nag ci la ëpp maanaa te it su boobaa ñu am man ñi dañuy yóbbaale ñu ndaw ñi ndax daf rek moo ci am solo kenn ku ne lam man mu joxe ko ñu dajale ko yóbbu loolu ci bunt yi ñu mën a jaar fi ne nii ngir liggéey sëriñ ci la bokk rawatin liggéey yu mag yi kilifa yi woote te doon lépp di njariñul diine di njariñul lislaam waaye di luy tax njaboot gi gën a mën a nekk benn ndax loo xam ne boo ci participer bu noppee benn muy jumaa wala mu jàngukaay bu dee jumaa bu jaamu yàlla jotee nga defi jaamu yàlla ku fa dugg jaamu fa yàlla nga am tuyaaba bu def jàngukaay lu mu yàgg-yàgg nit a nga fay xam aw araf di am di mucc tuyaaba di fekk fa nga nekk loolu jàpp naa ne ñun ñëpp ñoo ci war a def yitte boole sunu bopp ci jokkoo bu njëkkoon ngant man naa am nit ñi bokkuñ fu ñu dëkk jokkoo yombutoon dem ak dikk yombutoon waaye technologie bi daggal nañu baras yooyu tey ku bëgg ku umpale sa mbokk dalaa neex loo sori sori tey jataay bi ñu toog ni tey ay nit mën nañoo nekk ca Indonésie di ko seetaan di jokkoo ak ñi ne fii di déglu li ñuy wax di ko xam buñ noppee lu leen ci war ñu mën ko def kon mel na ne buntu umpulante moom yàlla euh, baaxee nañu ba tëju na nit ñi euh, euh, dañuy xama ak umpulante jokkoonte kon lu ñu soree soree ci ay jëmm war nañoo mën a àndandoo nag di liggéeyal diine liggéeyal sëriñ bi ci kaw bokk googu group yi ànd di sooso ci dara mbokk yëpp war nañu mën a boole seen bopp dajale seenu njaboot fexe it ñuy xamante nga xam ne famille bu ne war naa mën a am dars yow mi wala usbuwaay yi bu ñu def ci mbokk gi ndaw ñi di ci jàng xam seen i mbokk ñan la diw li ngeen bokk diw li ngeen bokk ngir bu ëllëgee foo dajee moom ay nit daje nañ fii jege lool ci mbokk xamantu ba tàggo ay nit sëy nañ te waruñoo sëy ndax umpale seen mbokk te loolu lépp ay yu ne ci dëkk bi ñu xam ko la te loolu réer du ngant fa kanam suñu borom kenn du la yàlla boo liggéey dama ko xamatu moo dama def ko réer du ngànt kon loolu yitte lañ ci war a def xam ne yu ñu war a xam la lu jamono dox dox day doxaale yooyu ñu di ko suuxat dundal liggéey bi ci mag ñi defoon rek jaadu na buñ goree ñu sàmm ko fay bu ne seeni maam bind nañ ca loo xam ne la jaadu woon tey ndaw ñi jël loola sof ca fa mag ña taxawoon fexe ba jokk ko ba sëriñ Moussa Ka rahimahullahu di wax naan lim na askanu Mbàkke ñuy xachar naa ñuy junne ak ñaar téeméer juróom fukk ak juróom juróom-ñeent yaakaar naa si sëriñ Fallu ne ko génneel sëriñ mu des nax suru xam nga ki tàmbalee ci maanaam ba foofu ba ci taawub sëriñ Sonia bu nee na naa la booba xachar naa jooju boo ko doon xool tey multiplier wu nangam yoon léegi sëriñ Fallu ñoom luy seen warteefee kon ci fexe ba loolu ñu xam ko affaire def ko njabootu mu abdu nan abdu yaat maag mu nangam yaat ma yooyu yaat ma moo de ñu ci soqi ko ñëpp def ko nga dem cekkeer ñu def noona su boobaa te lii doy waar mooy axiiran booy topp mbokk yi koo ci dem tuuti rek bokk ko ci des firi yi fi nekk ñëpp ñaari am nañ maam yu sant si ñang am ñu sant sekk am ñu sant kamara am maam yu sant sànq ah, lu ne am nga maam yu sant lu ne yaa nga ci séeréer ya yaa nga ci ca soose sa Ah, yaa nga ca ñëpp nit ñi noonu la yàlla doxeloon fi dañuy liñ lumtu ay ay maam ak meen koo dox tuuti rek mu génn fi yëpp fi fépp lay génn ñi nga mali ñii nga jëm ba kenn xamul loolu nag responsabilité njaboot gi ñu war ko sàmm la ay kilifa yu baax dox nañ ay jéego nag di ci sonn di góor góorgóorlu alhaaji Mbàkke Buso taarif na ci téere ci Mbàkke Mbusoobe sëñ Moussa Ka sëñ Mouhamad Dem ba ci sama waajur sëñ Mame Mor Seye ay yooyu liggéey daa war a wéy ci kër yëpp nag sëñ Mour Mamadou Niang mi gis naa liggéey bu am solo bu mu ci def ci askanu Afe la ko tàmbalee ci ma Lamine Mooma booba euh, soxna su doon su doon laaj laaj yu mel noonu waaye loolu mooy lu am solo loo xam ne dañ koy sàggane léegi ñi ko yittewoo sax bëreetut waaye dañu xam ne masuuliye bu gàll ci loosu ñëpp la xam mbokk gi ngeen ba ko dund waaye lim laaj ci do boole doole yi ak xel yi. ak it yar njaboot gi ndax mbokk bu ñu rek fi ne bokk na ci mooy yi gën a gaaw famille bu ne am daara daara yi famille ba dajale seen njaboot yóbbu fa yoon wi gën a gaaw ci sa njaboot say njaboot xamante di jaxasoo mooy nañ bokk daara gis bu ñu màggee kenn mënu leen tàggalee booba bokk gi dana dund dana jaxasoo waaye fi ne wuutey naanuwaay day jur buñ dayee ci ëtt bi kenn ku ne du mooyu ndax jàpp nga ne fa nga naanee rek moo neex moo tax mag ñi bokk na ci seen xikma dañ daan boole nit ñi naan waay mag ñi jaaroon daal alimul xabir tey lu ñu wuute wuute fu ñu jógee benn lañ woon saabu bu ñu nekk benn kon daara yu mel noon it jàpp naa ne baax na njaboot yi du ko def su ko defee day tax ñu mën a suuxat ci ñoom li sëriñ bi doon wootee sëriñ bi ak njub la doon woote ak mbaax lu diggu doomu ci lépp wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin waqsita loolu woo nit ñi loolu nag lu ñu yar nit ñi la doomu aadama yi fi mu ne ñaari jéego lañ nekk ñi dañoo ëpp ñi dañoo yees te lenn jagu ci nag ëpp jagut yees jagut ne ci digg bi mooy li jàpp sëriñ bi loolu la fi indi woon yar ci njaboot gi ñu defar ci àdduna mbooloo ci diir bu gàtt bu yéeme loolu nag ndono la fi des loo xam ne njaboot gépp ñoo ko bokk njaboot gépp ñoo ko war a àndundal kenn ku ne tàmbalee ci sa bopp ak sa njaboot ak ñi yàlla boole yow nga fex ba loolu gi di ko suuxat bu ko defee mbokk yit nag deret la waaye ruux la nag pas-pas la ndax dañuy wax ne mawlal qawmi minhum eh, ibnu uxtil qawmi minhum loolu day dàq li naar yi daan wax naan banu naa banu ab naa i naa wa banaatu naa banu hunna ab naaw rijaal abaidi xadi yonent bi salaam dafa daq loolu ndax nee na ibnu uxtil qawmi minhum kon bokk noo ci bokk rek ci bokk nga bokk boo ci bokkee ci deret ci nga bokk boo ci bokkee ci pas-pas ci nga bokk googu sax moo gën a dëgër ndax moom day wéy ba faw nit mën ngeen bokk deret te bokku leen lu ngeen gëm fii li seen ànd yam bu ngeen duggee ci bàmmeel ku nekk yëfam waaye bu ngeen bekkee pas-pas nag incha allahu taala bal jan ndax wa izan nufuusu zuwwijat loolu daal mbokk yi mu laa bëggoon a fàttali jotaay bi maa ngi jégalu nag di baal àq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.